Israel mom dama len di ñaanal yalla rek mom mi nga xamne ne ak dogal ci loxom rek la ne te amut kudul yonent bi mom suñ borom te mom moko wax di tawasul ci daraaje yonent bobu yalna yalla yàlla xalag leen yal yalla yàlla màbb leen seen halal mabbu seen xam-xam mabbu seen pexé mabbu ku len di dimbale ku meuna doon rek yalna yalla ku len di dimbale rek wala ngay bég ci li ñuy def rek yalna yalla yàlla mbikti mo muy nakar ci yow mu jeex ba faw ku leen di dimbale si sa doole yal yàlla xañ la doole ba bul amati doole du àdduna du àllaaxira Israël daal eh, boo boo seetee seen mbir mooy ñi nga xamante ne ñoo gën a saay-saay ci àddina bi ñoo gën a bon ci àddina bi ci gàttal nit du leen gën a bon nit du leen gën a yées ndax xëy di cokkaas nit di ko tooñ bis bu ne nga mos ko mu neex nga dolli ko bis bu ne nga mos ko mu neex nga dolli ko si loolu rek lañ sax ñi nga xam ne ñooy Palestine te ñooñu ñuy xeexal jotewu ñoo ñoom daara lu dul ne ñoom nangu nañ lenn ci seen suuf ñooñu bàyyi leen ko rek ñu ne duñ ko bàyyi nañ mujj nangu lépp rek caay-caay daal moo nekk ci Israël seen caay-caay googu nag dugal nañ ko ci aduna bi yëpp foo dem fekk fa ñu ngi signé wante ak réew yooyu ay contrat ay nu mu tuddati caay-caay képp ñoom ndax nit boo demee ba eh, amatoo ngëm yàlla sëy ak sa yaay du dara ci yow ndax nit lekk alalam du dara ci yow kooku yegg na ci dayoog mbon ñoom nag loolu mooy seen mbir loolu mooy seen mbir juif yi kon nag damay ñaan yàlla rek ci daraje yonent bi ak daraje yi bépp ruux buy dund te yàlla nga yëg ne mooy sa borom rek yàlla na yàlla màbbu Israël ba màbbu ba Israël dootut am yàlla na yàlla màbbu képp kuy dimbali Israël ba dootoo am dootoo nekk ci daraje yonent bi li ñuy def julli di foofu ñaaw na bon na yées na. Euh, tey yii nii kat bu fekkoon ne li lay wan ne njubadi moo nekk ci àddina bi bu fekkoon ne benn réew moo taxaw di def lii beneen réew boo xam ne ci occidentaux yi la occidentaux yu bëri taxaw nañ dakkal lii bu yàgg ba tey ñoom la neex rek lii di dérouler ab calendrier la bu ñuy dérouler rek di ko doxal te bokk na ci li ma lay wax yow mi toog naan mënta yegg Sénégal lu mel noonu lu mel noonu mu nga commencé di booy Sénégal yow mi toog naan mënta yegg Mali lu mel noon mu ngay booy Mali yow mi di toog naan da ngay toog rek xëy rek gis safara si di tàkk moo tax suñ borom daf ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa wa alamu anna allaha la iqab maanaam fitna képp ku ko xam doo ko yee fitna mooy li nga xamante ne nii maanaam sama yoon nekku ci génnewu ci kenn bokkuma ci génnewu ci kenn dana dana dana mën naa toroxal sax bëgg na a toroxal ki nga xamante ne ni jotewut ca dara kon Israël daal na ko ñëpp ñaanal yàlla yàlla màbb ko màbb alalam màbb njabootam màbb képp ku koy dimbale ci alal ak ci lépp ci barke yonent bi te yal na yàlla jox dëgg-dëgg lislaam gëddam ak xaqam ci daraja yonent bi def jullit yëpp seen xol doon benn ci zaahir ak ci baatin ci daraja yonent bi loolu rekk a jafe jullit waaye koom-koomu adduna bi yëpp jullit yee ko yor waaye jullit turu jullit jullit jikkoy jullit loolu jikkoy jullit lañ soxla jikkoy jullit bu amoon actuellement tey jii monde bi lislaam macha allahu tabaraka wa taala waaye heureusement fexe nañ ba euh, dox ci diggante nit ñi ak nit ñi di leen noonale nit li nga xam ci sëñ Fallou li nga xam ci Cissé bul ko weccee ak liñ lay wax ci moom nit ki li nga xam ci moom bul ko weccee ak li ñu lay wax ci moom naan la nii la mel li nga xam ci moom na la doy xam-xam wulis lay wax naan la nii la mel li ngay moom na la doy wulis liñ lay wax naan la nii la mel nit ku nekk loo jël sol ko jotul la rek bul ko solal keneen kon ñu ngi jéggalu di baalu xaq di baalu xaq di ñaan Israël daal yàlla alak ko Israël moom li ñuy def comme naqariwul rek baaxoo comme naqariwul rek maanaam du nit amut jullit nga am doo jullit li ñuy def képp ko am xol rek war na laa naqadi ndax li ñuy def tooñeel gu yées la tooñeel gu bon la ndax liñ def Gaza jamono yu yëpp tiim ko di bombardé ak di yàq seen alal di rey ak seeni ndaw ak koo rey ay ndawam kay réewoo màbb na jeex na ndax mag moom boo ko reyee ndaw yi màgg waaye koo rey ay ndawam ma màbb réewam àdduna am kon ñu ngi lu baax sëñ Fallou di wax ne Israël moom ku ci wax sa xol day jeex rek waaw waaw ñaan yàlla rek la ma ñaanoon laay wax sa Charlie Hebdo yonent bi rek man moom laa am ku moom awma ko di tawasulaat ci moom rek maa ngi ñaan yàlla na ma wan boppam ci Israël ci daraja yonent bi yàlla na ma woon pouvoir am ci Israël ci darajaam yàlla ma woon dooleem ci Israël ci darajaam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam